Fayaara di ndokkeel julliti réew mi yëpp rawatina tarixatul muridiya ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku sun maam ju tedd jooju di sëriñ maam moor moom soxna jaara muy bis boo xam ne bisu fàttaliku la ak bisu ñaan ndax yàlla dafa dogal fukki fan ak juróom ci sawaal wax nañ na ci la feeñ moo tax ñu jël bisub feeñ googu di ko ci ñaanal di ci fàttaliku jikkoom yu màgg yu tedd ya ak doxinam wa nga xamante ne ni moom la doon dox ci diiney lislaam te muy doxin woo xam ne wu ñëpp gërëm la gannaaw ba ko sun boroom subhaanahu wa taala gërëmee yonente bi alayhi wa salaatu wasalaam gërëm ko mboolam ñam jamonoonteel gërëm doxin woowa loola mooy yillay bis bi bisu ñaan la daal ak fàttaliku maam ju baax jooju nga xam ne euh, ni ñuy waxee ne sariha moom jëmu ko lislaam it jëmu ko la ko fi borom bi subhaanahu wa taala andee woon it def na ko ba mat sëkk te loolu rek mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa ilaa li mooy maanaa sun borom moom àq ji tax mu bind nit ci kaw suuf weesuwut muy ja mooy mu jaamu ko rek loola nag ah, borom saam daf caa def ba def ca lu kawe loo xam ne mboolam ñi bind ci moom lépp ñëpp seede nan loolu kon loola doy na sëkk ku dellu ci lan bind ci moom danga ca gis lu doy sëkk te ñëpp weesuwun wax jaa jaamukatu yàlla gum doonoon bu mag a mag bokkoon ci gawari guddi nekkoon koo xam ne ku sunu boroom mayoon ci téeréem bi la muy alquraanul karim ndax dañuy wax ne moom ci mu sax na yi la bokkoon mooy ñi nga xam ne euh, ñoo daan wéralal nit téeréb borom bi subhaanahu wa la képp koo xam ne mas nga koo xam bala nga doylu sax xam wala nga nga nga wóolu sax xam fokk da ñëw ci kanamu borom saam ba mu déglu la su la dégloo ba pare dañuy wax ijaa sa mu ijaasal la ci ngay soog a tegtalu ne ri yow li nga doon wut man nga ko te mooy alxuraanul karim loola buñ delloo ci euh, mbindi sëriñ Musaa Ka euh, radiyallahu taala anhu danañ ko ca fekk am na fu muy waxee ne te yooya xat la haaji seexu buso euh, laxase saalum ñëwal ñëw bawal di buusu ànd ak sëriñ mbakke ñu jaari mbàkke di sàkku alxuraan ju ànd ak barke asay xuma mar jaara moo leen tooral booba ku fay kàng fóori moo lay feetal ma nga taree ca sëñ mamar moom jaara tërbiya woo fa bàmba moo rëy daara kon dafa mel ne kon moo déglu sëñ Mbàkke bu sa alxuraan ak mag ñu bari euh, ku mel ne Seyxul Xadim rakkam ju tedd ji jaar na ci loxoom mu wéralal ko lu bari ci ay mbóoti alxuraan kon amoon na ci may goo xam ne daal sun borom moo ko ko defaloon gannaaw bi mu ko sàkkoo nag ci ñaari waa juróom wa nga xamante ne nii loola rek lan xam te loola ca la gimmi xam ko muy diine ak xam-xam ak ragal yàlla ndax loolu moom euh, ma maanaam natiir ba mu ba mu ganee jamono loola moo mooy la fa xew waaw ëtt booba day ëttub xam-xam ndax sëñ Maamor Anta Sali université la woon boo xam ne euh, mboolam xeeti xam-xam yi dafa daje woon ci daaraam nga xam ne ku mas a dugg daaraam rek boo fa génnee mënees naa wax ne xam-xam yépp peeg nga ko kooka nag du du mën a ñàkk mukk ab taawam nekk boroom xam-xam loola du doon kimtaan moo tax moom ba mu ganee jamono rek moom moo jiitu ci moom lam war a xam ci alxuraan war koo xam ci mboolam xoloomi sariya yi mu xamal ko ko gannaaw ga it mu jox ko nijaayam sëriñ bu soobe moo mu mu xam lépp ca sëriñ bu soobe moomu la ko jële wax nañ ne gannaaw gi jaar na ci yeneeni ëtt fu mel ne Saalum jaar na fa ba ci barni ñi gi wax nañ ne nekkoon na fa am fu muy sàkku xam-xam ba Seyxul Xadim mosoon na ko faa fekk ba ñooñe sax daana màggal bis boobu kon daal moom euh, géeju xam-xam la woon goo xam ne euh, lu bari daanoon ko balluloo ca moom waaye euh, li sëriñ bi di wax ne xam-xam doyul rek nga xam ko ci ay nett ak ay werante waaye lay la ca am solo mooy nga jëfe ko inna alladi lam yaxfa rabbal aalamin laysa bi aalimin walaw afnal funuun kon moom géeju xam-xam la woon waaye ku jëfe woon xam-xamam la ndax dañuy wax ne boroom xam-xam bu jëfewut xam-xam moom moog baima bu yenu ay téere rek kayam kon jëfe ga mooy la ci am solo waaye moom lay wane ne am na xam-xam mooy nam doon dunde ci li ko sun boroom digal kon daal jëmm la joo xam ne xajul ci ay waxtu xaju ci minit waaye lan mën a wax ci moom tam doy sëkk daal mooy mooy jaamu yàlla la woon boo xam ne la ko sun boroom indee woon ci kaw suuf moom def na ko ba mu sëkk ba ni mu delloo ci boroomam te loola it rakkam ja Seyxul Xadim seede na ko keroog ba mu fi bàyyi ko wax ne moo sëñ Mbàkke Ibra bàyyi tëxam la gis ci ñaar ñoo xam ne yóbbaale wuñ ci bàmmeel àqi sun boroom waaye yóbbaale wuñ ci àqi mbindeef yóbbaale wuñ bor yóbbaale wuñ àq kon di wane na la la waroon ci seen digg ak mbindeef yi moom def nañ ko. waaye la waroon ci seen digg ak seen boroom ba leen bindoon it def nañ ko ba mu mat sëkk kon nag ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala taaf ñu ci barkeem te def ñu gën a xeñcu dundam ak i jikkoom ba man di ca gën a teg sun tànk jéem ji ko roy sun kemtu lay kàttan ndax ñoom loolu rek lan leen defee loola it moo ñuy jariñ ca ñoom mooy fas yéenee góorlu ba fun tegoon seen tànk buñ teggee ñu jéem a góorlu ba teg ko fa ndax kun mënta roy moom amul ku ëpp roy it amut ndax bu doon loolu yonte bi alayhi salaatu wasalaam du ko royloo Ibrahim bu doon loolu ñun jullit ñi yàlla duñu royloo Muhammad sallallahu alayhi wa salaam ndax ku ne xam na ne moo ñu ëpp jéego fuuf waaye teewut borom bi roylooñu ko kon nag ñu baax ñii ñu yàlla sédd yi ci réew mi bu ñu bu ñuy naw rek seeni mbir ak di ko puukarewoo ak di ko ndamoo loola moom amul solo ndax nit ku ne la nga jëf yaa ko moom. waaye kon ñun la ñuy jariñ ci borom saam mii mooy ñu jéem a xencu lam doon dund ci diine ñu teg ca tànk te jéem ko caaroy sun kemtulaay kattan loola mooy tax su ëllëgee fu nekk ñu bokk nekk faak moom waaye bu loolu amul rek wax ji moom amul njariñ ndax moom ma ko doon jëf jëf na ko te dem na te moo koy jariñoo xëy na bu yee am lu ñu cay jariñu mooy barkeb jëf ja mën na fee def moom ñu ciy dund waaye loola nag mën nañoo bañ a euh, sowe ëllëg ci ñu bañ a jëf ndax loola moom doyul ndax Ibra bu boo doyoon yonent yàlla Ibrahima keroog ba ko ba ko sun borom ba ko sun borom mayee lam ko may mu ne ko boole ci samay sët sun borom da ko ne kuy tooñ moom doo bokku ci sama mbir kon yàlla moom lam xam mooy ku tegu ci yoon rek waaye maay sëtub diw ak maay doomi diw sa maam def na fi nangam bu sa maam bu maam gañe xare bi yëpp te yow gañe woo kenn euh, bu boobaat yow bu histoire di bind du la bind kon li am solo mooy la sa maam doon def nga góor góorgóorlu ci te nag du kimtaan goo moom moom moom jëfe ndigalul yàlla la rek amul genn kiimtaan goo xam ne daf ko cay gis ñun nag dañoo gaaw a yéemu ci fun mag ñi lu ñuy def dan naan ñoo ko man ak kenn mënu ko waaye loolu ay wax la rek jaamu yàlla moom ñëpp la ko yàlla digal te ku góor góor lu man ko waaw ku góor góorlu rek lu ca ñooña defoon man nga koo def kon nan góor góorlu bu baax a baax te jéem koo roy te fun ñaam fun borom bàyyil ñu fi fun kilifa yu baax yi fi nekk nga xam ne am am nañ ci ñoom njortu lu rafet am nañ ci ñoom yaakaar ndax li ñu wóor mooy jàpp nañ ne te it am nañ ci kóolute sax ci ne fa seen maam ju baax ja nekkoon foofa rek falan ne ndax fi na lii ay sëti borom saam yoo xam ne ay xaafisul xuraan lan di ay sëtam yoo xam ne ñoo nekk ci jumaa yi di fa jiite nekk maanaam ci bare bi alxuraan ya di fa jàngale loola boo ko génne woon ci yoonu murit la cay des du bari waaw foo dem rek fu ñuy dundale diine boo xoolee ka ko fay def sëtu mam borom sam la kon yàlla fay nako tay tey rabbil alamin